Heavyweight.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 ne dañuy dem ba mën a jëflanteeg sax suñu woy takk yi loolu tax ba bu ñuy def seeni ñaawteef yi lu taxaw ci seen kanam ñu maasaale <laughs> ma ne fu ñuy jëlee arme yi la xew ca pôle bu jam ñaajo doy na war ay samba booy daal ñoo fa ñëw yor seenu kaat-kaat ngannaayu ba mara dee taali doon bëgg a dugg ci ab kër boo xam ne ab couple ñoo fa nekkoon naka noonu bi ko gendarmerie yegee ci la ñu ñëwee ca béréb bi ma ne gendarme yi bi ñu egsee ci béréb bi def katu ñaw ñaawteef yi jàmmarloog ñoom la ñu def li xale yi naan daw ñu ci yoota dal di song gendarme yi dóor ci seen oto bi ay bali fetal yu bare maara dee taali naka noonu ci la gendarme yi mujj jëflante ak ñoom ñu weccante ay tiiri bari fetal mbete film ba benn ñaaw ñaawteef mujj cee ñàkk bakkanam fi mu ne ña ca des ñu leen di wër ma ne du ngeen rëcc de moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew zag mbaar romb na doy wa Dakar foofu it ab gang bu treize personnes ñoo fa ñëw ci guddi boori trois heures du matin dal di fa attaqué ab magasin Auchan samba boo yooyu nee na ñu àppi ko bu weex la ñu indaale dal di sol ay kagul moom daal ñu yegsee ci magasin moom bi mu gisee mën saw ay xaaru ko fa moom daal foox la def daw waaw waaw bu doon manit ma teg ko ci ay bali fital kat daa yemul a bi naka noonu bi mu dawee benn samba booy bu yor jaasi dal di koy topp waaye sa waay teggiwul tànkam teg ko ci la def ne fëx wax ni ko gis dee dal di daw dugg ci ruqu-ruqaatu quartier samba booy bi naka noonu ci la samba booy bi dal yeneen vigile yi nekk ca wet ga te doon garde yeneen i bërëb sawaay dal di leen tëbal ñu fëex ma ne bañ a daw naka noonu ci la gang bi dal di dagge vitre buntu Auchan bi dal dugg ci biir fekk fa yeneen i vigile ñoom it ñu ne fëex daw tëj ci ay lieu yoo xam ni am na sécurité ma ne ma bamtuwaat ko doole yemul laa wax ci la samba booy jubalee ci premier coffre-fort bi fekk ñu fa xaalis naka noonu ñu jubale ci beneen coffre-fort bi jéem ko dajji ubbi ubbi mënuñu ko ubbi ngir nag bañ ñu fekk leen fa ci la ñu duggaatee ci seen pick-up bu weex daal di ne may dem seen yoon ma réew mi ñii garde la ñu war a xoolaat fanaan ci mbedd mi ak kuur ma ne wóorul laa wax moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca dali romb na doy waar ab xale bu jigéen daal la fa ay waajuram bëggoon a forcé maye ko xale jigéen bi dal di xaru dakkal dundam nga ne xale bu jigéen boobu nee ñu da liggéey liggéeyu kër maanaam mbindaan moom daal nee ñu dafa doon wuyu téléphone ci ni muy wuyoo téléphone nag mu am ci dispute bu metti ak ki mu doon waxal naka noonu bi mu paree wax téléphone ci la ñëwee ci patronam dal di koy expliquer ne ko ay way juram dañ koo bëgg may ku mu bëggul ndaw si ni muy waxee ak patronam bi rek dal di daanu ci loxoom pique crise patron bi dal di tiit dal di fab yóbbu hôpital ñetti fan lañ ca ndaw si ñakk bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye nag li ci doy waar mooy ndekete ndaw si du mort naturel la def de ndax ginnaaw bi ñu defee autopsie dañoo gis ne ndaw si dafa am lu mu naan ab insecticide boo xam ne mu ngi tudd Boytox moo tax bi ñu ñëwee fi mu tëddoon daal dinañ fay gis insecticide boobu ma ne nag dara jaruk dara ko xaru moom dara dara dara ko may nañ la ko bëggul kay waxtaanal ak say wayjur rek buñ la bëggee forcé nga dem seeti sa yeneen mbokk waaye xaru ndax may ku ñu bëggul wax dëgg yàlla jaru ko nag xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz.